Bonjour je jërë programme prestige tv le ñuy à votre télévision régionale prestige fidèle à sa tradition du solo euh, ci euh, euh, na actualité actualité phare bi parti son excellence le président de la république Macky Sall ngir jëmal Sénégal kanam euh, prétexte boobu nag moo tax ba émission entretien exclusif amone bër ay jamono amul way nak jëlat na yonam ci seen télévision régionale du prestige ba tax na nag tey jii ñu dalal euh, doomu Thiès nek nak ku ñu suñu déggé turam rek wala suñ ko gisee ñu xam euh, ki moy kan moy monsieur Omar Ngalla Ciss nak, nag ci parti démocratique sénégalais

entretien exclusif. de euh, Saturne maa nuyu bu la centre du centre du groupe Thiès Prestige ci dalal bi ngi dans le. ma nuyu les téléspectateurs ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan ah di fas yéene tamit waxtaan ak euh, Saturne si li nga xamante ne moom la ñu ñëw seetlu fii si dëkk bi donc euh, di nekk à votre disposition si laaj yi nga may laaj. man nag man maa ngi tudd Omar Ngalla Ciss man maa ngi jàngee lycée de la Fosse jóge fa maa ngi je suis diplômé. de l'Institut international d'assurance de Yaoundé. Alors, ligué qui assurance en tant que directeur général de SAREC Assurance. Je suis également titulaire d'un master en finance et gestion d'entreprise, titulaire d'un certificat en gestion de projet, titulaire d'un certificat en droit d'environnement. Donc euh, voilà euh, je suis également j'ai participé plusieurs fois à des séminaires organisés par la Banque mondiale sur le partenariat public-privé. Actuellement, sur le plan politique, Mangi milité d'abord du PDS. En 2004, nous avons Dougousi Réumi. Depuis Bobo Léguenac, nous avons Idrissa Seck, en politique en 2009 suis en tête de liste locale au niveau de Thiès Nord actuellement je suis membre de la coordination de Thiès Nord et voilà nous avons actuellement je suis conseiller municipal à la mairie de Thiès Nord mais je suis le président de la commission des finances au niveau de la mairie de ville de Kies donc euh, je suis marié père de quatre enfants donc euh, globalement voilà le monde noir. à moment bo xamné bi bii euh, mo won woon waaye taxuloon ma bàyyi politique dafa nékkone ay moment de réflexion rek parce que tamit depuis 2000 on s'est beaucoup déployé alors li que li nga fait, c'est def nañ ko en 2000 de 2000 à 2009 nous avons fait bari woon on avait comme nous l'avons dit, à tout à tout instant nous avons mobilisé, mobiliser di liggéey ci politique bi di liggéey développement donc véritablement on a déployé trop d'efforts entre 2000 et 2009 après les élections locales de 2009 on a gagné bon mais comme ce qui s'en est suivi pas militant militants, mais nous tamit euh, ñu ñu nous trop mais dañu ne nous ñu nous ñu nous nous nous des choses réfléchir pour nous des et c'est actuellement le cas donc nous euh, nañu terrain politique bi comme comme on a toujours travaillé comme ça mais militants tamit nous tamit pour nous accompagner suñu suñu suñu œuvre mais accompagner également le président Idrissa Seck dans son travail politique donc mobilisation bi commencé wat alors là nañu defoon mom nous ñuy InshaAllah rek inshallah d'abord dama koy rafetlu dama koy rafetlu ndaxte euh, fofu da fay a confirmer rek fay confirmer ni Idrissa Seck daan wax tous les jours parce que tamit nit ki lo am am am intérêt bu intérêt taxaw Sénégal taxawé rek sa intérêt da ko war loolu la jëfé nak té nak deug deug mu nek ci contexte bo xamné bi bii Sénégal dafa nekkoon en crise Covid bi d'abord mais aussi surtout li nga xamante xalé yi gis nañ ko si ñoom dem dikk yeeg en une semaine plus de presque 400 morts dëgg-dëgg c'est inédit au Sénégal donc mu nekkoon benn psychose ñu wax ko ak ñu bañ ko wax yépp Sénégalais yi dañu toogoon nekk ci situation bu dramatique alors Idrissa ñëwam bi ndax ci dolli nag depuis 2000 euh, depuis depuis après les élections de 2019 le Sénégal n'a pas travaillé ça tout le monde l'a constaté donc ne serait-ce que pour l'apaisement et la stabilité et la reprise du travail bi nga maintenant, ne moom la ne bu Idrissa Seck dina am loolu rek parce que depuis 2019 les Sénégalais n'ont fait que de la politique alors qu'après la politique il faut travailler mais les Sénégalais ne le voient pas comme ça c'est pourquoi ils ont à tout moment exigé qu'ils Idrissa Seck Idrissa Seck nit ki boo xësee ba wax ba ñu dem élection wax bi li si des mooy liggéey mais Sénégalais yi ba léegi comprendre la gu lolo. Idrissa Seck dana leen won après élection liggéey la pour le fekkee bëgg nañu réew mi jëm kanam té loolu la def ni ñu ko ci sant di ko ci encourager di wax au nom de la population de Thiès Nord que né deug deug ñu ngi confirmer suñu attachement si Idrissa Seck par rapport à cette rentrée parce que xam nañu il a une clairvoyance il a une clairvoyance boo xam ne bi ay une détermination un engagement confirmé à travailler pour le développement du Sénégal C'est ce que xam savons, et te xam na c'est loolu dina ko wane incha allah si il dit il a des ambitions présidentielles c'est ku nekk xam na mais nag xam nga foofu li la ciy d'abord mooy li ma xamante ni juñ que ko biir wax parce que nous sommes devant l'intérêt du Sénégal aucun autre intérêt individuel n'a de signification il le dit souvent l'intérêt de chacun de nous n'a aucune signification par rapport à l'intérêt du Sénégal donc l'intérêt du Sénégal c'est nous nañu fait suñuy ambition présidentielle te le Sénégal si nous avons nous toll bés si si jongante jongante présidentielle yalla rek a xam té Idrissa Seck dafa pour amna ambition présidentielle dé gars mais présidence madame ak pal le donc si bu ko yalla namé ci mom inshallah dina ko président de la république dina ta def Idrissa président de la république et ñun tamit non lañ ko jappé donc véritablement ñu contane bu baax ci dugum bi di ko si encouragé à nouveau di di si ñaanal ndam. xam nga ñi nga ñoo ci coalition 2019 idi 2019 bi dëgg la am la ñuy wax ne moment la Idrissa dem mais d'abord, il faut que je fi mën la coalition là il dit c'est une coalition une entité politique mais quand même chacun d'entre eux a une entité politique indépendante et chacun d'entre eux a sa responsabilité en face de son entité politique donc il dit se sentant responsable par rapport à son entité politique a senti la nécessité d'aller répondre à l'appel du président de la République wax nee amna am na ke ñoom ñii ne bul dugg ñii ne ko dugal cela signifie que diisoo na ah kon nyi ñuy wax ne mën na am wax nañ dëgg mais de toute façon il dit li ma expliqué diisoo na parce que bu demee ba ne ñii ma dugal ñii nee ma bul dugg mais il a opté pour dugg ak lu mu metti metti metti parce que ñàkk dugg moo gën yomb parce que da ngay toog di sànni xel rek ah nit ñi di tàccu ñu naan woy Idrissa mais boo duggee dina wóor ne di nga mën indi dara ngir Sénégal apaisement bi ne serait-ce que pour cela joxe exemple que ne liguey jotna. parce que Idrissa ak lu mu mën ak lu mu def mën def du tok moko di ŋàññ comme ça Néna la chaque fois du ma c'est parce que je suis bien documenté par rapport à au propos yi tenir bon voilà donc agsi na fo xamné fi yaakaar na ne dugal loxoom moo gën génne loxoom dugal na loxoom ñu ko siy jaajëfal. xam nga loolu yàqkat yi rek dañ koy avancer comme argument mais loolu du argument parce que déjà Idrissa Seck programme am Moi am dissolution caisse euh, caisse de <laughs> économique et sociale euh, le la si dans sa dans sa dans son programme la am la dissolution de cette de cette de ah, programme am la dissolution euh, institution bobo mais ça c'est le programme de Macky et puis ce n'est qu'un début comment fan la ñu ce n'est qu'un début comment fan la ñu mën nañ toog ñu dissoudre ko mën nañ réfléchir si naka lañ a euh, une efficacité dans l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Mm-hmm. donc il y a des possibilités Mais jusqu'ici, les, Sénégalais n'ont pas senti quand même la, euh, la nécessité ou bien l'efficacité quand même de, cette institution-là. Mais Idriss Seck, son devoir premier, c'est de mettre un contenu visible dans cette institution-là. wan Sénégalais yi xarañteem lan la lan quand même pour au bénéfice des Sénégalais. donc loolu le problème que que jëkk là xaaree c'est ce yaakaar confiance trop ci sama waay dina ko jox contenu bu dëgër bo xamné bi, nit ñi nañ xamné li fi li fi ak li parce que tamit buñu faté né au niveau de cette institution là il a une prérogative pour xamné bi les gars dañ koy neub les gens dañ koy neub parce que dañu né né plusieurs décisions du gouvernement à partir de avant avant de prendre un certain nombre de décisions là l'exécutif doit obligatoirement obligatoirement obligatoirement l'exécutif doit obligatoirement consulter l'institution là dirigée aujourd'hui par Isis Sek. c'est déjà quelque chose et aussi xam y a changement dans la conception des programmes parce que tamit programme ñu la ko mais conception bi dafa am solo ni concevoir ba mise en œuvre bi dina yomb mise en am la du c'est le rôle naa sama way parce que les les les chantiers de Thiès sont nako en 8 mois non seulement la conception et la mise en œuvre d'une ci gis ay changements mais aussi le contenu de programme mais aussi la priorisation la priorité si vous voulez des programmes parce que ici il ci lo xaalis bu bari dugg na Sénégal mais quel est le problème d'abord c'est la mise en œuvre des programmes yi nga a dugul nañ ko mo am ay difficultés ñu àggali mais aussi a un problème la priorisation De fait quand il y avait une bonne priorisation des programmes mon nom am xale yii aujourd'hui si mon mi il faut parfois et là avec le concours de Hydrosec, il y aura très certainement des redressements par rapport à cela donc voilà ce que je peux dire à... xam nga foofu tamit li ma la fi wax parce que euh, le conseil économique social et environnemental du fekkente ne Idrissa jël ko ëllëg mun na quand même yàq dara si avenir politique am loolu nit ñi ñu ngi koy jàmbat di ko wax mais li ma la waxoon rek laa lay waxaat nee la ëllëg yàlla rek moo xam mais aussi. C'est un sacrifice que Idriss Seck a fait en, entrant euh, euh, dans, la majorité présidentielle et occupé le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. C'est un sacrifice. Parce que parce que le, Sénégal vaut tous les sacrifices du monde. Idriss Seck c'est un homme d'État. Il faut que nous le sachions. Si vous êtes homme d'État, toujours vous avez des réactions quand même spontané si vous nga parce que je dis souvent que Lolo un activiste. Mais def mais que c'est un homme d'État réfléchi qui pense aux générations à venir comme le disait l'autre et non pas aux élections à venir Lolo, il faut Sénégalais il dit. que te les élections à venir ne nous préoccupent pas mais c'est l'avenir des générations à venir qui nous préoccupe Lolo, laa la ci tout le monde sait que la situation est un peu quand même difficile. C'est difficile par rapport au ménage. C'est difficile par rapport à la jeunesse. Ça, il faut le reconnaître. C'est difficile par rapport à l'ensemble des Sénégalais. Mais ñaan y améliorations si mais le seul constat que tout le monde a fait ce sont les difficultés que vivent les Sénégalais. Et ce sont ces difficultés-là qui ont fait que Idrissa Seck a rejoint l'attelage gouvernemental pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Deug deug Sénégalais dund la Nord dund. les populations de Thiès Nord. nak mu am saafara ci fan yi di ñëw mu am amélioration par rapport ak à la à la au contexte politique bi nga xamné mom moy mooy ci fan yi sur le plan quand même euh, des difficultés mais aussi ñaanoon yalla ci fan yi ci ci jamono yi ku ci nek def ci def si sa loxo ngir quand même améliorer les conditions de vie des populations loolu daal laa la ma wax contexte bi difficile na jafé jafé yaangi fi mais nak ñun ñëpp ñu ngi taxaw pour ëllëg ñu def ci suñu loxo pour que condition de vie population Thiès Nord yi changé defe naa loolu nga ma bëgg laaj. du fekkee ne tamit euh, amna na nga gëna léral non moi man j'ai une ambition pour les Thiessois j'ai une ambition pour les Sénégalais mais man sama bopp seulement aw ma ambition mais j'ai une ambition pour les Thiessois j'ai une ambition pour les Sénégalais te du fekkente ne ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñoom ci biir parti bi mais bés bu fekkente ne ñoom euh, seen xel nekk na ci dénk ma dara man xam naa ne ah yàlla dénk nañu xam-xam bi yàlla dénk nañu man-man bi yàlla dénk nañu ay xame ci bitim réew yoo xam ne yi mën nañ ñu jàppale ëllëg ci lépp loo xam ne lii ceesaa yi bëgg nañ ko loolu daal laal la ci mën a wax jëf yi nag aajowul si man ci ñi ma àndal la aajo waaye nag am nañu yéene bu rëy rëy rek pour ceesaa yi te wóor nañu ne ñun mën nañ koo doxal doxal boo xam ne bii am na luñ ci wane si jamono yi ñu génn mais nag bés bu ñu jëloon yëf yi wóoluñu dénkuñu ko dinañ ko doxal loo xam ne nii Mm, yàlla mën na cee jox jox na jox ci ay résultats yoo xam mën na kaw a li nga xamante ne la cee sooy xaar loolu daal la ci wax d'abord man féliciter ah. groupe prestige bi suivre depuis na donc à part depuis le président euh, Doumbouya ba ñi nga xamante ne ñoo nekk vraiment yéen ñep maa ngi leen di jaajëfal di kontaan nak ci wote bi te di wax né Thiès Prestige man sama fierté la d'abord personnellement je suis très fier de Thiès Prestige et là véritablement c'est un exemple de cas bo xamni war nañ ko mëna joxé joxe fu ñu toll un jeune Thiessois vraiment qui a des ambitions qui a eu des ambitions d'abord pour sa ville d'abord pour ces populations et qui est parvenu à ce niveau Je euh, ne am pas mais c'est ci am solo initiative bi ba donc véritablement là toutes nos félicitations à M. Doumia et à l'ensemble du groupe Prestige yow sa bopp Saturne dinaa la jaajëfal bu parce que suis toujours ma tous les jours je te suis te es nga quand même milieu presse depuis le sud alors tout ça je suis suivre donc véritablement di la jaafal jaajëfal di la féliciter di la wax ne daal tegu nga si yoon bi fi mu nokki nii parce que tamit dinaa gis reportage yi ngay def si gàmmu yi tu te déplace am benn gàmmu boo xam bi on l'a vécu ensemble fële à Ndiassane alors donc yooyu yëpp maa ngi la ciy suivre te vraiment dila la jaajëfal dila di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne ñoo ñoo la jàppale si liggéey bi si ñu Moussa Mbaye alors euh, véritablement di ñaanal yàlla groupe bi di nous wax ni nous ñun fierté dañuy ñaan Nord les institutions de Thiès Nord ñuy cité euh, cité Prestige Thiès Prestige parce que comme si ñun la première institution yi nga xamante privé Nord donc il faut ñun ñuy fierté chaque fois de citer le groupe Thiès Prestige parmi tant d'autres institutions qui vont venir incha donc là véritablement suñu fierté les doon bu baax a baax a baax ñu di leen gërëm di leen sant macha allah. mu ngoog Omar Galla Ciss euh, ci kàddu yu am solo yoyu mom nak euh, samp naa laaj laajte ko rek ndax mom euh, ndax dina laaj tepp meerub Thiès ngir doxal ko wala ngir jël ko rek way nak nee Euh, moom nag dafa am ci fu mu bootu euh, ba tax na nag su nekkee ne ñooñu nag wóolu nañ ko bu koo dénk nee na moom man-man baa nga fa euh, xammee baa nga fi ba loolee suñ ko ko dénkee rek dina ko mën a jëmal kanam wala doxal ko moom delluwaat nag gis ngeen ko rafetlu na lool taxawaayu Prestige TV ci zone nord moom nag àdduna daal wax gis-gisam cali ceem cali yitteel actualité politique ci jamono yi xam ne moom la ñu dund fii ci Sénégal Mboki, Munekon, mu une émission entretien exclusif Nous donnons dalal Omar euh, de remercier Moussa Mbaye mi euh, caméra bi entretien exclusif